j'ai jamais vu. Pico yaa ay. waaw waaw ndeysaan. ci jeune bi ah. ndeysaan. borom mariage ñuy waaj. Pico mais Pico. léegi. c'est ça que ça part. Merci beaucoup, Khalid. Merci. la Je vous accompagne dans votre loge. Pico, mais Pico, félicitations. il y a une fierté au Sénégal et en Afrique, en Europe et partout dans le monde. Pour les Guy, c'est mon éleveur ñu sunu tiitër nga ci Sénégal rawatina ak Afrique ak monde entier bi euh, Viviane gis ne ni vraiment ce programme dafa chargé gis ne ni que ni vraiment tu n'as pas assez beaucoup de temps mais parce que relation yi nga am ak say rakk ak say doom say xarit fu nu xewlee nga ñëw saxaw leen alors d'abord bëggoon naa nga wax ma d'abord tes relations avec Sidi Diop nu gis ni nga baye lepp te yañu ngi maye sa dom Zena Ndour di sunu dom di sunu xarit nu koy féliciter di ko souhaité un heureux ménage yalla na ko yàlla yeggaleeg jàmm te mo baña am ben cat yalla mosal nu ci mu ne mu ak beaucoup de succès quelles sont tes relations d'abord avec Sidi Diop ak li wara cété way ci bir Zénith. tout d'abord kontaan ci teew bi teew fii euh, mu nekk relation frère ak sœur nek relation euh, ñu bok sunu Sénégal euh, bokk milieu bi bokk métier bi. سيدي نك خالي بو خامتيني خالي بو يارو لا خالي بو ام تالان خالي بو من لي داف دونك تاي لوما خيو لا رك داي تخاو لوما خيو لا داي تخاو مون نانا سو تخاول وون صاح داماي تخاو ناخ سما رك لا ا تي نيت ني سوت شيك داف تي لا نين نيوكو بوب كون تاي ما تخاو في بليزير لا غيس نين ني مو داف كروك اولمبيا واتي باسي donc tey lu ma def loolu mën a jàpp rek dama ko ci xaj-xajal ba mu xaj ma ñëw rawatina nag mu def ma marraine bis bi bu nekk lu rëy nag ci man tey bu du nag li ñuy pare euh, Sénégal euh, sa mariage rakk kon heure bii délégation bi yaakaar naa ne gën na gën na métti mais lenn rek laa leen di wax kontaan naa ci Sidi ndeysaan Viviane kontaan nga ci Sidi nu kontaan tamit ci yow Viviane musoo xew musoo woote tey mën naa ne am nga fierté bu rëy kenn mësu gis Viviane taxaw ni sentir ci kanam di ko gis mu ànd bii euh, euh, euh, kanam gu neex bii kontantement bu rëy yaay ji maye doomam mbégte boobu nga ci am et puis pour la première fois Viviane êtes au Sénégal. Oui, sant rek sant yàlla rek sant. sant. en tout cas félicitations. donc à tout à l'heure merci beaucoup.